acuudu billahi min alshaytaani fi kulli mawdihin wa fi l awtaani bismi lilahi wa huwa arrahmaanu wa huwa arrahiimu qaada lil amaanu alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana alhuda abada sayidina muhammadin wal aali wa sahbihi dawina walil waali laqil lisaani waxlulan minhu luqad wajal hudakiran wa shakiran abada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 tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci sunu yaakaar Serigne Touba mu jëme woon ko ci laabiire jullit ñi ñu yittewoo dunduk àllaaxira tey fàttaliku dee fu ñu toll te xam ne àdduna fees di jaar di jàll la te mbokk yi fàttaliku dee lu am solo la ndax sëriñ tubaa day wax ci xikma ne fàttaliku dee moo gën fanaanee fanaane la maanaam taxaw guddi yëpp guddi gu ne nga fanaanee fanaane naafila ba bët set léeg-léeg nga jël saa soo xam ne ni dangay ngay fàttaliku dee mu wóoral ne mi ngi ci sa kanam te amut fenn foo daw ba ba doo dal ci kawam wala ba du dal ci sa kaw amut nee na loolu moo gën fanaane naafila guddi yi kadaka dikrul mawti afdalu lana min alqiyaami fi layaali zamana waxaat na ci xikma ba tey ne adduniyaa mamarrun wal axiratu ma almaqar àdduna def fees di jaar di jàll la saxwaay bu mooy ëllëg yowmal qiyaam ëllëg alaxira te loolu alxuraan wax na ci lu bari lu dul jeex wal axiratu xayru wa abuqaa te it moom sëriñ bi nee na deekat ah bu ngeen ko bàyyiwul xelit mooy li leen gën a jege ndax moom mi ngi ci seen kanam aynama takoonu yudrikum mawt wala kuntum fi buruji mushayyaba dee moom boo koy daw sax day mel ni yaa ngi daw di tasee ji ak moom moo tax sëriñ bi ne mooy li leen gën a jege mooy li gën a jommale moom dee te gën a métti wex mooy li gën a wex mooy li nga xam ne nii wextaan wu mel noonu kenn du ko mos ci ak dundam dee metti la mat nay bàyyi xel bu baax a baax te it nee na e, buy ñëw daleen di bett te kenn mënu koo daw almawtu aqrabu wa adha wa amar wa baxtatan yaati wa ma anhu mafar moo tax am na ko mas a ñëw ci moom ne ko man de mbàkke dañoo nangu sama kër sëriñ tubaa ne ko kër mu ne ko waa mu ne ko man de amaguma kër ne ko ñëwal ma wax la ne ko nit nit ñetti dal la am bu jógee ci ñetti dal yooyu nag lay doog a dem këram dal bu fa nekk nag bu fa nekkee ba xajutu fa day jàll ca dal ba ca des ne ko dal bu njëkk mooy biirum ndayam nit bu nekkee ci biirum ndayam ba xajutu fa day dem ci àdduna bu nekkee ci àdduna ba xajatu fi mu dem ci bàmmeelam bu demee ci bàmmeelam ba xajatu fa lay doog a dem këram yàlla na ko gënal nag muy àjjana ndax mook ko safara rekk fa nekk kon mbokk yi lu mat a bàyyi xel la euh, a Cheikh Ibrahima Fall daana wax ne na ngeen tëppax bala ngeen a tabax na ngeen fexe ba tëppax mi muy bàmmeel am na boroom xam-xam bu ragal yàlla bu bindoon Salih ibn Abdul Aziz Salih ibn Abdul Xudus wax yu am solo laaj bu am solo mu tontu ko tontu lu am solo daf koo wax ne ko almawtu baabun wa kullu nnaasi daaxiluhu fa layta charia baadal baabi maddaaru dane ko dee daal gis naa ne bunt la boo xam ne ni ñëpp a fay jaari ni ñëpp ay dugg ci bunt bi kenn du ko échappé ak neexoon nag ma xam bu ma duggee ci bunt ba fan mooy sama kër ndeyjoor laay jëmam càmmoñ ak fuy sama kër daal daal koy laaj laaj boobu yi Salim na Abdul Xudus tontu ko ne ko addaaru jannaatu adnin in amilta bi maa yurdi l ilah wa in xaalafta fannaaru huma mahallaani maa linnaasi xayruhuma fanzur li nafsika maasa anta muxtaaru ne ko ah kër gëre àjjana lay doon bu fekkee daa nga jëf lu suñ borom tabaaraka wa taala gërëm bu fekkee daa woo ko def nag geneen kër rek fa nekk muy sawara yàlla na ca la musal mu ne ko ñaari barab yooyu daal la nit mën a dem muy àjjana wala safara yow nag yaay xool boo ciy tànn kon nag mbokk yi alquran yee nañu lu baree baree baree bare bare ci mbirum ëllëg xadis yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yu dul jeex ci lu ñuy fàttalikuloo dee ak ëllëg sëriñ tubaa sunu yaakaar moom ay jëfam ak i waxam ak i meloom ak i bindam foo ci dem sa xel ci ëllëg lay nekk danga xam ne fii fu dee fi eh, sag fu dee fi fàggoo la dundub ëllëg waaye saxuwaay bi ak nekkuwaay bi ak kër ga mooy ëllëg kon lu àdduna niru niru euh, lu neex te neexut sax da koy niru lu niru niru lu rafet ay xoy-xoy la ay nax la bu mu ñu yàqal mukk dunduk ëllëg gi nga xam ne nii moo moo di dund ëllëg timit mooy saxuwaay ba nañ ci bàyyi xel yàlla na suñu borom defal tawfiq ba waxtu wu nekk suñu xel di dem ci dee ñoo ngi fàttaliwaat mboolem mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi liggéeyub daaray Hikmatul mi